jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki tey ñu dellu am mbégte invité Ramatoulaye Ndiaye jàlloo moom nag responsable politique APR la fi nga xam ne moom mooy euh, Patte waaye tamit mooy coordonnatrice mouvement national des enseignants républicains Euh, ci euh, fi nga xam ne mooy euh, Patte d'Oie moom la ñu seq seqal waxtaan tey Ramatoulaye Ndiaye Diallo maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Abdou Khadre Seck maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier ci dalal bi nga ma dalal fii tey ci plateau mi FM maa ngi nuyu auditrice ak auditeur yu mi FM yëpp macha allah. Euh, jërëjëf euh, Ramatoulaye Ndiaye Diallo yow nga nekk responsable politique euh, APR fi ñu toll nii keral ci conseil des ministres bi dégg nañ njiitu réew mi di wax ne dafay wàññi ceeb beeg diwlin ji ak suukar si waaye ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ñoom ba léegi wàññeeguñu ak wàññi gi njiitu réew mi di Macky wax lan moo ci sa xalaat. waaw merci ci laaj boobu nga xam ne question d'actualité la parce que. fan yi ñu génn defe naa ñaari fan rek la euh, gouvernement bi génn na ay mesures yu am solo yu jëm ci soulager population yi parce que seetlu woon nañ ne njëkk yi dañoo yéegoon moom population yi xaw a xaw a sonn ah, waa lépp dafa dafa yokk woon loolu moom dëgg la mhm. mais président wax dëgg neex yàlla ci politique sociale bi muy def moom askan bi rek moo ko ñor donc pour soulager les populations ah mu ne nañu wàññi njëkk yi te defe naa wàññi nañ ko euh, kii bi génn na nit ñi gis nañ ko mais difficulté bi ñu ngi koy gis toujours ci marché bi puisque commerçant yi wàññeeguñu parce que nee nañu seen stock bi nga xam ne moom la ñu yor il faut ñu écouler ko mais xam naa ne euh, mesure bi bu ñu ko toppee vraiment encadré ko li nga xam ne bëgg nañ ko ci muy soulager population yi dinañ ko ci am waaw mais mais mais Ramatoulaye est-ce que euh, li mu wàññi est-ce que solo si bëri na est-ce que solo si bëri na ndax gis nañ tey location baag nii cher na njàng mi cher na wàllum faju gi tamit cher na euh, ciment beeg béton beeg yooyu yëpp dafa cher moom te li mu wàññi suukar si mu wàññi ne euh, cinq ñu baree bari sax yàgg na 600 lañ ko doon jëndee foofu dafa mel ni euh, wàññi bu am solo daal amu fi. waaw wàññi bi am na ñu naan amul solo mais am na solo parce que président dafa conscient que xëy na njëg yi kawe woon na. c'était c'était pas à la portée des waaw c'était la portée des petites bourses donc bi mu ko seetloo xam ko mu ne nañ jël mesure pour wàññi mais du suukar kese waaw mais lépp la wàññi lépp la wàññi diwlin kese la wàññi ak ceeb waaw ak ceeb mais ah. loolu loolu loolu naa mooy denrée de première nécessité yi donc bu soulager population yi ci loolu mais meew maa ngi nii yokk na ciment bi yokk feer bi yokk waaw mais loolu tamit xam nga dépendrewul fii ci sunu réew parce que tamit bu fekk ne coût coût mondialu dollar bi dafa yokk aussi c'est normal que prix yi prix yi yokk loolu moom nekkul loo xam ne vraiment c'est du ressort du du président de la République son excellence Macky Sall waaw loolu la mais nag mu ngi def lépp lu mu mën vraiment pour alléger souffrance su population yi et je pense qu'il faut saluer les efforts qu'il est en train de de faire. waaw léegi euh, euh, Ramatoulaye pour yow lii nga wax nii ne njëg yi dafa yokkoon mais bari nañu bokk APR ñoo xam ne dañuy wax ne Macky ba fi ñëwee ba léegi yokkul benn njëg. waaw ñoom dañ koy dañ dañ dañ koy wax mais tamit xam nga nit ki tamit da ngay am une honnêteté intellectuelle gis nañ ne njëg yi yokku na mais nee naa la du ci moom parce que bu doon moom rek xëy na njëkk yi du yokk parce que président lépp loo xam ne day indil population bi jafe-jafe moom doxul ci loolu mais bu fekk ne vraiment xool nañ ne dollar bi yokk na au niveau international y une flambée y a une inter euh, une inflation donc loolu dafay dafay impacter aussi euh, au niveau économique loolu moo tax peut-être njëkk yi xawoon yéeg mais bi mu xamee ne vraiment xëy na yéeg na te peut-être nit ñi sonn nañu ah defe naa mu ngi def ay jéego yu am solo pour euh, vraiment wàññi njëkk yi nit ñi mën a mën a souffler tuuti. d'accord mais euh, Ramatoulaye euh, Ndiaye Diallo yow loolu mooy sa xalaat waaye tey yow yaa ngi wax ne lu ñuy bi bitim réew mais suukar dañuy defaree fii suukar diwlin dañ koy defaree fii. ceeb dañ koy bayee fii est-ce que loolu politique bi ci état bi waroon a def est-ce que bu ko si defoon tey mënut a yomb ci réew mi. waaw xam nga président de la république Euh, doon liggéey pour ñu nekk ci auto ñu atteindre autosuffisance alimentaire 2017 sax. la ko nattoon du ma sax wax ne dafa échec. mais xëy na ñu ngi ci jéego yi te xëy na la ñu yaakaaroon ne dana mën a am ba ñu atteindre autosuffisance en 2017 mën na am loolu tollooguñ ci mais li wóor ba wóor mooy président ak gouvernement ñu ngi ci loolu pour vraiment que le Sénégal soit autosuffisant sur le plan alimentaire waaw xëy na nag ñu ban horizon mais je sais que président mu ngi liggéey ci loolu moom gouvernement waaw mais yow euh, Ramatoulaye yow leer na la ne euh, am ngay doom ñoo ngi jàngi euh, am ngay mbokk wala yow yaa ngi dem hôpital mais xam nga ne faju geeg loolu lépp lan moo tax état bi mënutoon a taxaw tamit ci ci ni mu wàññee njëg yi wàññi ko siireen njëg yi te njëg yi ñu wàññi sax ministre bi démb nee na Dakar kese la concerné waaw xam nga loolu tamit bon man li ma ciy mën rek mooy ma def une analyse superficielle mais dugg en profondeur ci biir euh, gëstu bi. aussi peut-être li ma jënd si boutique bi nga jënd yow tamit ramadan. waaw moom moom moom laay jëndee moom laay jëndee constaté nañu ne que njëkk yi à un moment donné. yéegoon na mais xëy na mu ngi wàññi te bu ñu demee ba ci kanam aussi euh, population yi dinañ ci gën a gis seen bopp je pense que effort bi nga xam ne euh, président ak gouvernement bi ñu ngi koy def loolu la ñu war a saluer waaw mais du ne yeneen considération yoo xam ne peut-être que vraiment du ñu jëmee fenn. daa daa mais non dinañu ay ay xalaat la ndax ah. yéen tey euh, Ramatoulaye yéen. Mm-hmm. seen deuxième mandat bi ngeen ko amee. Mm-hmm. yéen da ngeen ne woon deuxième mandat bi année sociale la. Euh, mais année sociale mooy année boo xam ne euh, njëg yi dafa yokk loolu fan la fan la fan la fan la année sociale nekk. ah année sociale moom président bu ko defee ba tuddee ko jigéen yi ak jeunes yi. Hmm. dafa am fu ko teg te gis nañ ne tous les actes qu'il a posés depuis vraiment deuxième mandat bi gis nañ ne vraiment dafa nekk ay actes yi nga xam ne dañuy nekk actes yoo xam ne dañuy jàppale population yi nekk actes yoo xam ne xëy na dinañ soulager population yi peut-être nag nee nañu daanu dajul daju suuf ni ko olof Ndiaye di waxee mu ngi ci parce que secteur yu bëri président def na fa jéego yoo xam ne moo gouvernement bi ñëpp salué nañ ko gis nañ ko mais xëy na du tic au tac li mu bëgg yëpp mënu ko def donc il faut ba nga fi nga xam ne foofu la bëgg yóbbu sénégalais yi mu mën fa yóbbu sénégalais yi mais tout de suite et maintenant ñu bëgg lépp yemb aussi je pense que loolu aussi dina xaw a jafe. d'accord euh, jërëjëf euh, Ramatoulaye Ndiaye Diallo euh, ba tey actualité bi gis nañ fan yi mu inauguré benn benn stade tuddee ko maître Abdoulaye Wade lan moo ci sa xalaat. ah waaw inauguration bi ak stade bi nga xam ne tuddee na ko le président Abdoulaye Wade ñu koy ñaanal wér ak gudd fan je pense que nekk na affaire bu rafet ñëpp a ko rafetlu moo tax boo xoolee inauguration bi keroog ni mu mel defe naa peuple bi yëpp ñoo jóg taxaw parce que nag ki mu ko tuddee nag ah dafa liggéey ci réew mi lu jar mu tuddee ko euh, stade bu toll noonu président xam na li Ablaye wadd président Ablaye Wade liggéey ci réew mi defe naa pour delloo ko njukkal loolu moo tax mu tuddee ko stade bu bees bi te ñëpp dañ ci kontaan. waaw fan yi tamit euh, gis naa ne président Macky Sall ma ngi def ay jéego ndax ginnaaw bi équipe national bi jëlee ko bi inauguré na fi hôpital wàññi euh, dund gi waxtaan ak euh, jàngalekat yi est-ce que du dafa sentiroon ne ñi ëpp ci askan bi dañ koo meree moo tax jamono ji ñenn ñi jàpp nañ ne tembe nii Macky ma ngi gagné ay points ci coupe bi fi ñëw stade bi mu inauguré est-ce que yow gis nga loolu. waaw xam nga coupe bi bi mu ñëwee nekkul coupe président Macky Sall. yàlla nag dafa dogal ci magistère la coupe bi ñëw nag ñu di ko xaar depuis 60 ans yàlla dogal mu ñëw ci magistère bu président Macky Sall ñu ciy sant yàlla mais coupe bi peuple sénégalais moo moo moo moo gagné donc su fekk ne ñëw na ah ak engouement ak enthousiasme bi mu àndal tout le peuple jóg. nekk derrière son excellence le président Macky Sall ñu accueillir les lions président féete leen neexal leen neexal bi mu leen neexal loolu je pense que au-delà de la personne du président Macky Sall tout le peuple sénégalais ñoom ñoo ci fier parce que victoire bi sunu ndab la dañ ciy sant yàlla. yeneen acte yi muy posé aussi du ñu ne rek xëy na dafa xalaat ne jeexal na jeexalagul parce que dama àgguñu 2024 dese na ko mu ngi programme bi nga xam ne moom la tegal sénégalais yi léegi nag bu ñu demee fii ba 2024 li ci kanam yàlla moo xam mais président acte yi muy posé nii yëpp yooyu acte la yàgg di posé depuis ñu teg ci bopp réew mi mu def li mu li nga xam ne fa la yem ci premier mandat bi deuxième mandat bi ñëw moom mu continuer di dérouler son programme donc je pense que pour di wax ne xëy na dafa xalaat ne dafay jeexal moo tax muy poser de tels actes non man je je non man je pense qu'il est vraiment dans la logique des choses dafa am lu mu tegoon ci te ci loolu la nekk di dérouler son son programme. mais est que nekkul koo xam ne xelam dafa nekk ci ñetteelu mandat yow sa xalaat tey tey yow boo doon joxe sa xalaat ramatulaay Ndiaye Diallo en tant que ku bokk APR ndax d'accord nga président def beneen mandat. xam nga man sama avis waaw sama avis moom ce n'est pas important non mais c'est important avis sénégalais yëpp dans leur majorité loolu moo moo ëpp ah, solo mais yow bëgg am sa man nag awma ci xalaat parce que pour man président Macky Sall kenn déggagu ko mu àddu ci troisième mandat nit ñi ñooy spéculer ku nekk di wax lu la neex mais président mu ngi ci liggéey bi nga xam ne moom la ko Sénégal yi dénk jox nañ ko premier mandat mu liggéey fi lu am solo loo xam ne président euh, sénégalais yi wóolu nañ ko gis li mu fi liggéey ñu joxaat ko euh, seen confiance joxaat ko un deuxième mandat mu nekk ci lool mm-hmm. donc président ci loolu rek la nekk. Ah, d'accord moom si logique am la nekk di liggéey liggéey léegi euh, yow amaana yow nee nga sa xalaat amul solo mais yow sa xalaat. Mm-hmm. Ramatoulaye Ndiaye Diallo sa xalaat am na solo ci man. Mm-hmm. yow tey. bëgg nga mu def beneen mandat wala bëggu mu def beneen mandat. président bu fekk ne sénégalais yi. yéen lan moo tax ñu mu leen cee wax. bu fekk ne Sénégal yi. accordé waatan nañ ko seen seen seen kàddu seen suffrage wóolu ko xam ne doylaguñu ci moom ndax li mu fi def bi mu fi toogee ba léegi. su fekkee ne taxaw na ne dafa bëgg troisième mandat dinañ ko si jàppale. boobaa nooy def. su boobaa ñu jàppale ko ndax ñun moom la ñu àndal su boobaa ñu jàppale ko mu liggéeyal Sénégal li nga xam ne moom la ko yéene su fekk ne nag moom ci boppam nee na doy na fii laa yem su boobaa tamit ñu ànd ak moom gunge ko ba mu rafet mu dem. ndax président dans tous les cas def na fi lu rafet loo xam ne tey jii même su paree woon 2024 ne day dem aussi moom il va partir la tête tranquille il va partir euh, la conscience tranquille je veux dire parce que li mu yéene Sénégalais yi def na ba fi mu yem mu dem parce que nag mbiru état la dangay def ba fi euh, fi nga war a yem rek nga yem fa keneen ñëw ndax li ñu yéene Sénégal benn nit mënu ko def ñaari nit mënu ko def hmm. mais président gis nañ ne bi mu fi toogee ba léegi wax dëgg neex yàlla ah gis nañu nit ñi gis nañu fa mu jëlee réew mi ak fa mu ko indi newu ñu nekk ne fa mu ko jëlee baaxul ndax ki fi nekkoon muy président Abdoulaye Wade moom itam liggéey na fi lu am solo ba demam jot mu dem. président Macky Sall ñëw moom itam mu ngi mu ngi liggéeyal réew mi. d'accord léegi euh, Ramatoulaye euh, xam nga tamit am na loo xam ne kenn du ko weddi mooy président Macky Sall tabax na ay université tabax na ay hôpitaux. Euh, def na réalisation yu mag def na stade ay stade def na ay berte def na ay TER mais vrai que ñu bari ñoo ngi dute ci coût bi que dafa cher que amul transparence euh, ñoo ngi koy wax te ku ne am na sañ-sañ aussi wax loolu surfacturation yu demee noonu waaye li ñu bëgg a wax mooy dëkk bi si boppam euh, dafa metti nit ñi amuñu xaalis te yow loolu nag wax dëgg yàlla yaakaar naa ci askan bi nga bokk dëkk bi dafa dëgër dafa ñàkk xaalis nit ñi yoruñu xaalis loolu nag président Macky Sall ba léegi trouvé ko ci solution. ah waa Abdou Khadre dëkk bi su méttee est-ce que président Macky Sall moo tax dëkk bi métti. Ah, waaw déedéet moom kay taxul dëkk bi métti président Macky Sall dafa ñëw fekk dëkk bi métti. mais da ko war a saafara. Ah, mu ngi ci. dëkk bu méttee tax ñu fal ko. bu méttee tax ñu fal ko. moom si boppam mu xam ne dëkk bu méttee tax ñu teg ko fi. te yaakaar naa ne président Macky Sall nag mu ngi liggéey waaw. xëy na nag Sénégal bari na problème bari façon boo xam ne xëy na mënul xëy xëyee rek lépp sotti mu ngi ciy dem ndànk ndànk secteur bu nekk ak la mu fa def nit ñi di ci teg seen bët mais nañ ko may temps mu liggéey. temps non ah, non liggéey na ah président yow itam Abdou Khadre. temps kay may temps kay amul. waaw waaw xëy na ndax mandat bi deux ans moo ci des. mais dix ans yi passé ñëpp gis nañ président Macky Sall li mu liggéey Abdou Khadre dans tous les secteurs. d' accord ah wax dëgg yàlla waaw. d' accord jërëjëf euh, Ramatoulaye Ndiaye moom euh, responsable politique APR la Patte d'Oie nekk coordonnatrice euh, section Patte d'Oie mouvement national des enseignants républicains léegi tuuti nag. ci élection locale yi ñu génn ndax élection locale yi euh, yow fi nga ñëw dëkk sax Padoa dañ leen faa gañe xam naa dinañ ci ñëw mais euh, globalement dafa bëri foo xam ne benn Bokk Yaakaar yéen ngeen ko ñàkk est-ce que yow am nga mbetteel ci résultat élection yi passé waaw jërëjëf Abdou Khadre ci sa laaj bu am solo boobu man nag élection yi ni mu demee surtout fii ci Dakar mën naa wax ne am naa ci mbetteel amuma ci mbetteel parce que li tax euh, am naa ci mbetteel dañ ci liggéey nag ñun Patte d'Oie laa xam dañ ci liggéey liñ ci war a liggéey ànd ak monsieur le maire sortant Banda Diop ñu liggéey dans la euh, coalition Benno Bokk Yaakaar et dans la grande majorité présidentielle ñu liggéey liggéey bu am solo campagne campagne bu ci ay fu ñu war a dugg ñu dugg fa li ñu war a def yëpp ñu def ko donc soo xoolee efort yi nga def ci campagne bi affaire bi ñëw demee neneen da ngay am mbetteel je pense que nekkul mbetteel puisque bi ñu ne monsieur Banda Diop moo ñuy jiite wala comme dans toutes les communes président ne diw mooy jiite topp nañ ci ginnaaw ñi nga xam ne xëy na dégguñu ndigal dañoo dem beru dem ah loolu am na ci commune yëpp ñun sunu commune Patte d'Oie am na fa yeneen commune am na fa defe naa ñooñu nga xam ne dañu dem ñooñu ñoo fragiliser APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ñooñu bu ñu toogoon tey ji je pense que APR wala coalition Benno Bokk Yaakaar dinañ toogaat ci mairie yi loolu moo war a tax nag vraiment ñuy def lancé appel pour sunu camarades yi nga xamul xam ne demoon nañu dans des listes parallèles ñu ñëwaat ñu ànd liggéey ci législative yi nga xam ne ñoo ngi ci sunu kanam. léegi xam nga euh, Ramatoulaye ñoo ñu dem man pour man par exemple tey yeneen communes mais bu dee kaaw Padois ci Bande Diop ñi dem man am na fu may d'accord ak ñoom. li ko waral mooy mënoo nekk porte-voix dafa liggéeyal président mag Sall di jàkkaarloog Banda Diop muy xas Macky Sall di ko saaga ngay défendre Macky benn jour ñëw yàlla def ñoom ñaar ñu ànd rek nga bëgg di ko demal àndaat ak Banda Diop am na ñoo xamante ni psychologiquement euh, loolu seen seen seen seen dignité ak seen principe mën leen ko may. waaw xam nga dafa am fu ma lay corriger tuuti parce que monsieur le maire Banda Diop nekkul kuy saaga ak kuy xaste même ba mu nekkee ci beneen côté bi mu féete woon muy taxaw Dakar musul xas kenn. mosul mosul wax wax bu ñaaw parce que du kuy wax wax ju ñaaw mais xëy na dem nañu ba benn moment mu sentir na xëy na état soo àndul ak moom na la nga bëgg liggéey ak la nga yéene sa commune sa askan peut-être doo ko mën mu daal di ñëw si ñëw bu rafet ñëw ànd ak tuddeewu ma ko transhumance parce que mu ngi toujours au parti socialiste uh-huh. nekkul APR mais dafa ñëw ci coalition Benno Bokk Yaakaar mu ñëw liggéey euh, liggéey ak ñun donc je pense pas que euh, dafa nekk trahison nekkul trahison. léegi trahison ah. waaw peut-être ñoom la engagé donc ba euh, ñëw bi mu ñëw ànd ak ñun dafa tax ne élection présidentielle bi passé ñun ñu gagné largement suñu commune donc ñëwam am na solo ci Benno Bokk Yaakaar. est-ce que ñëwam moo leen yàq. non non yàqaluñu yàqaluñu yàqaluñu léegi loo ñooñu nga wax ne xëy na ñëwam moo tax ci local yi ñu dem ñoom am nañu raison yi tax ñu dem mais je sais que bu ñu toogoon. doon na gën a baax ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolu la daal la laa ci mën a wax. mais tey ville de Dakar dañ ko ñàkk Abdoulaye Diouf Sarr Aliou Sall Guédiawaye ak yeneen ténor est-ce que dama gañ globalement amoo mbetteel. waaw am nañ fa mbetteel tamit amuñu fa mbetteel li ma lay wax rek parce que tamit wax ji bu ñu ko nëbb APR ci boppam ñoo xeex APR du coalition bi de mais ñun APR ñun ci suñu bopp ñun ñoo daaneel suñu bopp. Hmm. parce que gox boo dem. ñi nga xam ne dañuy dem ci liste parallèle yi bañ a topp ndigalu président de la république dem def lu leen neex je pense que ñoom ñoo ñoo ñoo indi situation bi nga xam ne moom la dund tey ci commune yëpp presque. Mhm. donc euh, loolu loolu loolu mooy wax dafa dem ba mënut a contrôler waa APR wala. waa xam nga local la mbirum local la. xëy na président li mu bëgg lay wax topp leen ci kii ngeen liggéey. Mhm. mais nag su fekk na nit ñi gisuñu seen bopp ci choix bi mu def aussi am nañu droit dem fi ñuy dem mais bu ñu mbir mi dana gën a dana gën a baax si ñun mais dem bi ñu dem nag loolu moo fragiliser coalition bi. loolu mooy dëgg. waaw mais est-ce que euh, Ramatoulaye euh, Ndiaye Diallo est-ce que du yéen benn Bokk Yaakaar walla président Macky Sall ndax yow yaa ngi wax ne waa APR ñoo ñoo xeex coalition bi mais yéen ndax dañoo gis ki leen may Padoa a Dièye ñoo xam ne may a Dièye ci wàllum politique amul carrière politique. amul benn représentativité politique bu tax ñuy wax kooku bu leen gañee yéen est-ce que du jëmmi Macky Sall wala jëmmi Benno Bokk Yaakaar la askan bi sanctionné. déedéet loolu gëwuma ko parce que kooku ngay wax muy sunu sœur may mun a jéey ñu koy ñaanal yàlla na toog ak jàmm ci mairie Patte d'Oie parce que nag yàlla moo dogal. mu jël ko mais jël bi mu ko jël ça ne veut pas dire que euh, quelque part euh, monsieur Banda Diop dafa dafa liggéeyul mais mais bul fàtte ne may mën a jéey dafa dem ci coalition bu ñuy wax yeewi askan bi te du Patte d'Oie rek la ñu presque toutes les communes ñoom ñoo ko jël parce que coalition bi dafa am ay identité remarquable yi nga xam ne. kon daal coalition am doole la. waa am na doole ndax ñi nga xam ne ñoo waaw déedéet am na doole ah. ndax bu amul woon doole du jël presque toutes les communes du département de Dakar ah même de la région de Dakar laay wax mhm. am na doole minimiser wuñ ko mhm. mais dama la bëgg a wax ne du ñi nga xam ne ñoom la ñu fal comme maire ñoom ñoo gañe ñoom gañe wuñu parce que pratiquement kenn xamu leen te liggéeyuñu loo xam ne war na tax ñu jëlee fa ña fa nekkoon waaw mais coalition bi ñu demee ak ñi nga xam ne ñoo jiite coalition bi nekk ay identité remarquable waa ay kàngam defe naa loolu moo tax ñoom ñu gañe partout hmm. waaw parce que bi ñuy def seen campagne gis nañ ñi ñi nga xam ne ñooy kàngamu euh, coalition bi dañoo ànd ak ñoom dugg ci terrain bi waaw waa Yewwi hmm. dugg fi ñu war a dugg yëpp donc euh, dañoo liggéey xëy na liggéey nañu c'est vrai mais je pense que nit ñi voté wuñu pour ay nit dañoo voté pour ay identité yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci coalition mais yéen seen coalition bi nag lu tax est-ce euh, euh, ki harmonie boobu amoon na si waaw sunu coalition bi am na ci parce que tamit président Macky Sall ku ko xam xam ne ba mu fi toogee ba léegi Benno Bokk Yaakaar la wax. no non mais bii nag euh, yoonu président nekku si yow yéen yow yaa yéen yoonu président nekku ah. photo nekku ci campagne léegi nag yéen tey Yewwi Askan Wi dafa ñëw ay ay kàngam nekk fa teg seen programme. Ah. yéen waa coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que tey. Euh, ànd bi waroon a ndox seen diggante kàngam yi gis leen ñu bokk politique campagne est-ce que yow loolu gis nga ko si. ok gis naa ko ci parce que ñun sunu commune ku mel ni monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne moo doon candidat ville de Dakar ñëwoon ànd nag ñun ci campagne bi ku mel ni monsieur Amadou Ba coordonnateur moom itam ñëwoon na donc am nañu ay identité remarque remarquable yi nga xam ne ànd nañu. ak ñun ci campagne bi gunge ñu ci mais nag peuple bi moom mooy choisir. et le peuple non du question ëpp doole yeewi moom mënuñoo ëpp doole. ah non non yeewi ëpp ëpp ñu doole. mais li ma la wax rek nit ñi voté wuñu ko pour coalition bi dañoo voté pour ay kàngam yi nga xam ne ñu ngi ci biir yeewi. ah waaw mais kàngam yooyu ñooy yeewi rek. yooyu xam nga dañu ñëw. am nu ñu ñëwee. waaw cest à am nu ñu ñëwee rek ñoom tamit ñu ñëw parce que nit ki foo nekk aussi il faut nga marqué sa territoire. Mhm. waaw ñoom itam buñ leen minimiser. waaw parce que ñëw nañu marqué nañ seen territoire wan nañu lu ñu mëne donc je pense que képp kuy analyser nekk nit di analyser lucidement les choses di xam ne ñii nekkuñu ñoo xam ne dañ leen war a minimiser. Hmm. mais ça ne veut pas dire aussi que ñun ci suñu biir coalition aussi amul ay ay kàngam am nañu ay kàngam. te liggéey nañu mais nag xëy na dañuy toll ba nga xam ne nit ñi sax dootoo comprendre lan moo tax ñuy choisir. mais est-ce que tey par exemple euh, euh, est-ce que du ñoom léeg-léeg askan bi da leen a sanctionné ndax ñu bëree bëri Sénégal léegi euh, société bi am na ñoo xam ne bëgg bëgguñu transhumants yi ndax dañ jàppee euh, ay workat est-ce que tamit ndax gis nañu transhumé comme par exemple Banda Diop moomu ngay wax boo demoon tey HLM Pape Seck boo demoon Colobane euh, Ousmane Ndoye dañ ko dañ ko dañ ko sanctionné lu mel noonu transhumant yooyu est-ce que bokkul ci li leen yàqal. waaw ñoom moom damay répété di la wax ne wu wuñu ku mel ni le monsieur le il est encore. au parti socialiste foofu la ne mais dafa ñëw ci coalition Benno Bokk Yaakaar mais moom mu ngi woon parti socialiste. waaw xam nga mais dafa ñëwoon dem taxawu Dakar. waaw gañu mairie dëgg la waaw Khalifa Sall am problème mu bàyyi ko. waaw est-ce que loolu la xam nga nag man raison yi nga xam ne ñoo ko motiver sax ba mu jógee taxawu ñëw ci Benno Bokk Yaakaar man xaw ma ko. mais li ma xam mooy que le maire Banda Diop mu ngi toujours au parti socialiste. transhumé wul mais pour en revenir encore ci question transhumance bi ngay wax je pense que transhumance ñun ñëpp ñoo koy déplorer. même yéen APR. même ñun ñii si suñu biir APR dañ koy déplorer. Mhm. parce que tamit ñun dañ fay nekk 2009 2009 ba léegi ñu nekk fi ànd ak son excellence le président Macky Sall di liggéey ak moom. mais gis nañ ne transhumants yi nga xam ne ñoo jóge feneen ñëw ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla dañ leen wooyee ay transhumants ñu bàyyi fa ñu nekkoon. ñëw fekk si président Macky Sall ak APR ñooñu tey ji am nañ fi privilège yi nga xam ne ñun ñi fi nekk démb ak bërki démb amuñu ko loolu mooy dëgg loolu moo tax transhumance kenn mënu koo rafetlu parce que am na ñu fi waxoon ne ku transhumé dañ lay dañ la war a fusiller dóor la bal waaw xaw ma mais tey jii ñu ngi toog ci wetu président Macky Sall di liggéey ak moom ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne vraiment amul lu ñu yàqul président Macky Sall ci wax ju ñaaw te monsieur le maire Banda Diop bi ngay wax kenn mësu ko dégg mu yàq président Macky Sall euh, euh, ñu jox ko conseil économique social environnemental muy kër goo xam ne kër gu am doole la institution bu mag Yankhoba Diattara ñëw ñu jox ko ministre te jamono ji ñu leen di jox neexal yooyu am na ñoo xam ne ñoo ngi woon cees ba dara du dara di xeexal président Macky Sall te Thiès tamit ñu bari dañoo jàpp ne li Idi transhumé moo tax gaa yi jéppi ko waaw loolu tamit am na parce nit ki doo nekk fenn ba mu métti nga bëgg fa jóge dem feneen boo xam ne da euh, foo xam ne da nga fa fekk ay nit muy Thiès ak feneen un peu au Sénégal. Mhm. ay nit yoo xam ne dañ fi nekk ndaw woon ak président Macky Sall ca njëlbeen bi di liggéey. Mhm. liggéey ba liggéey fu dara amul sonn ba bëgg dee yow nga jóge fële parce que fi nga nekkoon baaxatul. Mhm. nga ñëw ñu jox la yenn yi. bàyyi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nag. mais fépp la. fépp la te ñun waa APR loolu moom wax dëgg neex yàlla gënaluñu. Mhm. waaw mais président moo ragaluñu président mais xam nga. déedéet kaasuñu mais xam nga président. du ko kaas laa wax ndax da président. doy de ragaluñu président ndax président nekkul ku ragallu président nekk na ko xam ne il est très accessible il est très ouvert kenn euh, du question ragal mais jox nañ ko cër respecté nañ ko parce que il représente une institution. non non respecté nañu mais. yow ki jóge fa mu nekkoon jóge kër baayam ñëw ne la yaay sama sama sama baay noo koy def. Mhm. da nga koy sànni mënoo ko sànni mais ñoom ñoo waroon a am ngor fa ñu nekkoon. ñu toog fa loolu la ñu waroon a def mais tey jii bu fekk ne président dafa demee si logique coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne tey jii ñoo ko gunge jàppale ko ba mu falu tey jii tamit bu ñu ñëwee fekk si ko li mu mën rek mooy mu teral leen. te te président ci loolu la nekk. d'accord léegi euh, man euh, li nga wax ni euh, xam nga lu tax lay Ndiaye Diallo d'accord ma ci yéen waa APR. man damaa gis ne Macky Sall euh, joxu leen cër ba mu leen war a jox reconnaissant wul ndax li tax mooy am na ñoo xam ne ba dara du dara lañ doon jàppale ki nga xam ne mooy président Macky Sall tey par exemple tey boo demoon fu mel ne Dagana Omar Sarr mi doon buum di mi ñaari élection ñëw na fa waa APR gagné Omar Sarr Omar Sarr bi mu demee ba nga xamante ni toogaayam euh, jékkatut mu transhumé ñëw ñu def ko ministre mu jël ay nitam ñu bàyyi fa ña nga xamante ni tey ñoo fa doon xeexal Macky Sall te Omar Sarr nangu woon jafe woon lool euh, yëngal foofu noonu dama la jox rek exemple euh, exemple bu mel noonu euh, moo xew tamit boo demoon fu mel ni Kaolack ñoom Mariama Sarr lañ fa jot a liggéey lépp Macky Sall déjj di ko fa teg fa nga xam ne mooy Mamoun Ndiaye xam loolu laa ne ak ñeneen ñoo xamante ni tey fu nekk ci réew mi jàppale nañ fa président Macky Sall ba mu yorugut ñaari salaamaaleykum yorutub big sañu ta folli sañu ta fal te ba léegi ni Macky Sall defuloon xaali wala kasiran te yéen li tax ma ne leen yéen euh, da ngeen a ragal Macky Sall ñenn si yéen li leen naqari da koy wax ci garam yi fi ngeen toog di ko waxtaanee ak ci réseau yi bu ngeen dajee yéen seen biir te du ko jëmee ci yëkkati ci kaw. déedéet Abdou Khader xam nga loolu nga wax ci Dagana wax ko ci Kaolack moo am fépp ñi nga xam ne ñu ngi woon feneen. Mhm. ba ñu ñëwee président daf leen takkal ay ndombal tànk. Mhm. bàyyi xëy na ñenn ñi nga xam ne ñu ngi fi woon bi dara. du dara mais xëy na ña li ma la expliqué léegi loolu moo am. président coalition bi ndax président dafa nekk nitu kàddu nekk nit koo xam ne gor la ba mu jeex loolu moo waral lii muy def nii mu di ko def. mais gor. waaw jàppale ba dara du dara. Ah, waaw mais xam nga nee nañu bu yoon jeexul waaxasul du jeex. ñun moom ñu ngi ci rek. ndax démb ak barki démb ñu ngi fi woon ñu ngi ci tey ñu ngi ci suba. Ah, léegi léegi yow lan la la Macky Sall nommé. ah man day wax dëgg neex yàlla président de la république son excellence monsieur Macky Sall nommé gu ma dara wax dëgg yàlla waaye nag man damay liggéey ndax 2009 ba léegi maa ngi fi di liggéey nekk ci commune Patte d'Oie nag yor fa sama baas di fa liggéey ci loolu la nekk. xam nga yow yaa ngi liggéeyal président 2009 ba léegi ba ba ko kenn gëmut ndax président Macky Sall. Ah, sama classe waaw léegi sama classe gii. mu ku ne moon Macky Sall 2012 day falu ma ne la déedéet. Ah. kenn gëmutoon Macky Sall. Mm-hmm. yéen ñi ko gëmoon nag yéen a bëgg Macky Sall yéen gëm Macky Sall yéen ay Mackis keneen ku ko wax Macky Sall da koy nax léegi yéen lan moo tax yow. boobu ba léegi mu mën a jël Patte d'Oie am ñu mu fa nommé yéen ba léegi mu leen di seetaan loolu moom ci lan la bokk. waaw xam nga tamit Abdou Khadre est-ce que président mën nañ na nommer ñëpp mënul nommer ñëpp xam nga politique conviction la sacerdoce la dafa am looy gëm yëg ko moo loolu moo day motiver nga ciy dem nee nañ nag kuy mag du fecc ci yàlla naa dee wala kuy sonn ci mbir am na loo ci yaakaar mais nag su fekk ne sunu tuur jotagul mënuñoo daw parce que ngëm-ngëm moo nekk si ñun ñun ay Macky Sall lañu président Macky Sall la ñu gëm moom la ñuy liggéeyal. mais est-ce que d'accord nga ne frustration am na ci biir APR. mais am na frustration kay am na ci biir euh, APR en pagaille parce que tamit munoo nekk foo xam ne 2009 ba léegi nga nekk fa sonn ci amoo nomination amoo dara di jël sa alal di ko def si nit ñi parce que nit ñi boo nekkee responsable politique ci benn gox. Mm-hmm. dañuy yaakaar ne problème bu ñu am yow yaa ko war a faj man nii dañuy ñëw ci man ma di leen fajal seen soxla te man sama salaire rek laa am aw ma dara ci APR. xam nga donc munoo nekk ci mbir. te bari nga ci morom. a ah, bari naa ci morom du man rek bari ci morom am pagaay foo dem loolu am na fa ñi nga xam ne dañoo yàgg sonn ci APR amuñu ci dara mais nekk ay responsable yoo nga xam ne seeni propre moyen la ñuy entretenir seen base. man maa ngi nii sama kaa ngi nii ak kaaw ñeneen mais taxul aussi ñu découragé parce que ñun président Macky Sall la ñuy liggéeyal aussi sunu réew la ñuy liggéeyal parce que dañuy yëngu aussi ci social. même président Macky Sall bu nekkatul tamit ñun dañuy continuer di yëngu ci social di jàppale ñi nga xam ne yàlla dogal na dañ leen a tane. waaw mais est-ce que tey euh, Ramatoulaye euh, jël ay transhumants jox leen ay ndombay tànk est-ce que loolu neex na leen. neexu ñu de parce que nag bu doon sunu sago heure bii man sama classe bi dana fekk ñu weesu fii ci politique ndax nag liggéey nañ fi loo xam ne jar na franchement ñu am ci dara gis ci sunu bopp. ngir mën jàppale seen askan. gën a gën a mën a jàppale sunu su sunu sunu base parce que su fekk ne as néew li nga xam ne moom la ñu amal sunu bopp muy sunu liggéeyu bopp si la ñuy dimbalee sunu su sunuy nit. tey jii bu ñu amaatee loo xam ne parti moo ñu ko jox muy ndombal tànk mais dafay gën a neex. dañuy gën a mën a jàppale population yi gën a mën a soulager vraiment préoccupation population yi. tamit euh, Ramatoulaye euh, li ñuy wax bu yoon jeexul waaxu si du jeex. Euh, nit tamit lu jot rek yomb mais dafa am loo xam ne est que man man man dama ko mënul comprendre aussi mënuma comprendre 2009 nit di jàppale Macky Sall ba mandaam bi yépp jeex def ñaari mandat 12 ans ba 12 ans yi jeex amul benn nomination boo xamante ni wala benn jàpp jàppandal Euh, defal na la ko loolu euh, est-ce que xel mën na ko nangu ci ci ci cadre politique te jamono jooju nag ma ngay jël ay nit di leen def ay ministre conseil ay chargé de mission ak ay ay na leen ak leneen ah waaw mais xam nga loolu moom loolu moo moo neex yàlla loolu moo am parce que nag président Macky Sall ñi koy liggéeyal ñëpp mënul kenn ku nekk mu jox la dara loolu tamit il faut que ñu lucide aussi mais joxul dara bëri mais ba tey rek mais gis naa ñu jox dara mënuñ ko jëriñ mais gis nañu ñoo xam ne tamit amal nañ ko njariñ mu jox leen dara mais bëri na ñu jox te mënuñ ko jëriñ ah, waaw ah. koy wax ah xam nga mën naa jox kaawu Thiès ma ngi nii ah, la ko jox dañ euh, dañ ko dañ ko gañe foofu mhm. te te euh, jox nañ Moussa si parce que dañ ko gagné. Mhm. def nañ ko président conseil d' bu port. waaw mais joxuñu ko. parce que dañ ko gagné ko joxoon bu yàgg. lañ ko ko joxoon loolu laa wax dañ ko ko la amal Macky Sall. pour temps amal na ko njëriñ de liggéey na. lan la liggéey liggéey na mais. li ko politique la. politique bu koy wax pour gagner la. Mhm. gañewut waaw gañewut waaye nag ah, ah mais ba tey président Macky Sall moo ko fi taboon parce que dafa ko liggéey loon loo xam ne daf ci tagoon bëtam moo tax mu jox ko li ko jox ah. léegi yéen euh, am na ñuy wax ne da ay lobby dafa am palais mm-hmm. boo amul loxo bu gudd amoo bras long duñ la nommer nanga mag naam dañoo mën a yàqalante loolu est-ce que mën nga ko dëggal lobby bi ah loolu moom duma ko duma ko dëggal dégg naa ko nag waaw dégg naa ko dégg naa ne palais moom. am na lobby am na lobby. boo lobby palais. déedéet wax dëgg neex yàlla bu ma fa amoon lobby boo yeesu naa fii ma toll nii. ah kon kay xam nga ne lobby jàllale. waaw nee naa la dégg naa ko. mais xam nga ne lobby jàllale. lu ah wóoru ma ndax ndax Sall am na ñoo xam ne moo leen di tànnal boppam nomel leen boppam. Ah, waaw mais non yow yaa ne boo doon am nga lobby nga ni passé nga fi. passé naa fi waaye damaa damaa amul lobby loolu mooy dëgg. kon lobby mooy passé le waate. mën na passé passé le waate. ci yenn côté yi am na ñoo xam ne bu ñu amul loxo bu gudd. Ah. du ñu mën a jàll te nee naa la léegi nekk ci xarit nekk xaritu buur nekk ci xolu buur moo ko gën. Mm-hmm. waaw boo nekkee ci xol ba fu mu toll. xelam day dem ci yow moo ne. mais est lobby yooyu entourage président am na ñuy wax ne entourage président bi baaxul ndax yow yaa ngi dégg loolu ak ndax lan mooy sa xalaat. waaw xam nga man entourage président mënu maa xam ndax baax nañu wala baaxul. parce que jegewu ma leen jegewu ma wax rek laa ci dégg. comme lan que euh, am na ñoo xam ne dañuy lobby am na ñoo xam ne euh, bras long li ñuy wax moo tax ñu ñu am ñu toll fi ñu toll. mais nag déedéet gë mën naa ko gëm. mën naa ko gëm parce que man ñii di wax ak yow aw ma moo tax xëy na ma toll fi ma toll mën naa am su ma amoon lobby am du ko tuddee lobby sax am rek bras koo xam ne xëy na dana la mën a boole nag lëkkale la euh, ki nga xam ne mooy joxe gannaaw yàlla xëy na su ma ci amoon ko mel noonu peut-être mën naa ma weesu fi waaye nag yàlla dogal na aw ko. waaw dégg naa waaye nag waaye nag découragé wu ma parce que ki nga xam ne mooy fan ginnaaw yàlla muy président Macky Sall man moom laa yaakaar pour mu. Euh, pour dénk ma dara. léegi tamit euh, maa ngi dégg ñuy wax ne Mahmoud Saleh bokk na si ñi nga xamante ni tey euh, ñooy organiser lobby yi te ku lëkkaloog moom man nga am nomination damaa dégg lu mel noonu ci waa APR. ah waaw nit ñaa ngi koy wax waaye nag man aw ma ci. aw ma ci firnde aw ma benn relation ak moom lu dul nii rek. waaw aw ma aw ma benn relation particulière ak monsieur Mahmoud Salem bi ma nga xam ne dama ko respecté wax dëgg neex yàlla léegi bala ñuy jàll ci euh, sa synthèse une wala deux minutes ci wàllum transhumance ak frustration bi am APR waaw loolu moom li ciy wax du gudd mooy que transhumance lor nañu ñun ñi nga xam ne danoo yàgg APR yàgg ànd ak président Macky Sall depuis dekkal ngor transhumance moo tax gisaguñu wax dëgg neex yàlla sunu bopp ci ci mbir mi donc transhumance nekk na loo xam ne dañ koy naxarlu waaw xëy na bu dul woon ñoom ba tey weesu nañu fii mais li ma la wax rek président Macky Sall coalition bi moom la jox cër ba képp ku jóge feneen ñëw fekk si ko tamit pour moom rek dafay jaadu mu cëral la d' accord léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi mu am samedi bu jot 15h 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck tey ñu invité ramatul Ramatoulaye Ndiaye Diallo moom responsable politique APR la fi nga xam ne mooy PADWA mooy coordonnatrice section PADWA mouvement national des enseignants républicains dana ñëw ci wàllum njàng meeg njàngale meeg seen mouvement boobu nga xam ne euh, am na ñu si ànd am na euh, ñu ci àndul léegi yéen. élection locale yi ñëw na passé ngeen am mbetteel léegi élection législative yi euh, ma ngi ñëw euh, est-ce que li leen daloon ci locale yi lu mel noonu ragalu leen mu dal leen ci législative yi. déedéet li ñu dal ci locale yi mën nañu bañ a dal ci législative yi parce que je pense que législative yi ñi nga xam ne dañu demoon yëpp ci euh, locale yi dem seen yoonu bopp ñoom ñëpp dañuy ñëwaat ci biir kër gi te bu ñu ñëwaatee ci biir kër gi nag. dinañ constituer benn force bi nga xam ne ku ñu jàkkaar lool yaakaar naa ne dinañ la dinañ la dóor. Mm-hmm. waaw léegi lu jëm ci wàllum caution bi. Mm-hmm. opposition bi ñoom 5 millions lañ wax. Mm-hmm. pouvoir bi wax 15 millions. lan lan moo ci sa xalaat. waaw caution bi je pense que ñoom ñu ngi ci négociation yi te xëy na bu ñu demee ba ci kanam euh, dinañ def li nga xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp. je pense que 15 millions ak 5 millions. différence bi bëriwul donc mën nañu trouver le juste milieu ba ku nga xam ne kenn ku nekk ci parti yi nga xam ne dañu bëgg présenté wu affaire bi du du métti ci yow d'accord mais euh, Ramatoulaye yéen jigéen ñi dafa mel ni wàllum élection ci Sénégal yéen gën a sonn ci politique yéen a mobilisé euh, yéen sax li ngeen ni euh, trahi def trahison war bëriwul góor ñi en ñooy def loolu lu tax ba léegi yéen amu leen benn représentativité bi maanaam ci wàllum poste domination yi waaw xam nga loolu nag euh, ñu ngi ciy def ay jéego nag parce que wax dëgg neex yàlla président Abdoulaye Wade moo fi indi woon parité. depuis loi parité bi ñu ko tegee ba léegi. waaw xëy na respecté guñ ko intégralement mais tamit ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ciy dem boo xoolee assemblée nationale ah parité bi c'est presque euh, pratiquement respecté xëy na ci yeneen instance de décision yi lañ ko respecté wul même élection locale yi passé je pense que du ma wax ne ñëpp respecté nañu waaw ba ma wax ne ñëpp respecté nañu parité bi mais dans plusieurs localités la parité a été respectée mais ci bureau municipaux yi waaw ak départementaux yi euh, ramatalaay ko def waaw mais loolu am na benn kuréel bu koy xeex mais waaw dañ koy xeex kay waaw dañ ko war a xeex parce que dañu war a appliquer parité bi loolu moo moom mooy yoon te jigéen bu xam sa droit je pense que ci biir bureau municipaux yi nga teg xeex nga ba fi ñu la war a teg nga teg ko par exemple mairie euh, Thiès ville benn femme moom mooy première adjointe bi. elle s'est battue pour ça donc man yu mel noonu dama leen di naw di leen encourager femme bu tudd Marème Ndiaye moom mooy première adjointe mairie Thiès ville. et elle s'est battue elle s'est imposée je pense que jigéen ñëpp taxawaay boobu la ñu war a am. waaw mais yéen euh, seen président dafa mel ni moom faalewul parité bi Macky Sall jigéen ñi ci wàllum nomination. ah ok ok. ok ah, non bi ñu doog di toog non bi ñu doog di toog gis nañ mu mel def xumbal jël poste premier ministre non non man xumbal ma xamuma loolu laa jàpp waaw ayca waaw man xamuma man xumbal laa jàpp mm. ndax euh, jël poste premier ministre def ko jigéen mm-hmm. jël police nationale def ko jigéen jël euh, conseil économique social environnemental euh, def ko jigéen mm-hmm. jëloon OFNAC def fa jigéen mm-hmm. waaye bañ demee ba si digg bi gis nañ ne jigéen ñu ndaw ndaw ñoo nekk ci gouvernement bi bi ñuy def ay maire tamit jigéen ñu tuuti lañ tànn nañu jiite ay commune bëriwuñ sax euh, même député ya tamit lu mel noonu moo ci amoon. xam nga je pense que ñoo ñooñu nga tudd Abdou Khater di wax ne président bi muy doog ñëw def na premier ministre bu jigéen. conseil économique et social mu def fa jigéen ak police nationale mais dafa nekk jigéen yoo xam ne dañoo am profil bi. defu leen fi rek defu leen fi rek. parce que mais wu jigéen. du xumbal sax parce que teg na leen fi te ba mu leen teg. dafa gëm ne foofu mu leen teg mën nañ faa nekk moo tax mu teg leen fa xëy na nag dem nañu ba ci biir la taxoon mu teg leen fa xëy na gisu gisu ko xaw ma yan raison amul xam-xam bañ am xam-xam ñun fu góor taxaw dañ fay taxaw ba romb ko ah, am nañu xam-xam parce que ñooñu ngay wax ñooñu ngay wax xam-xam moo tax mu teg leen fa lu tax mu jëlee leen fa kon waaw peut-être que dem na ba benn moment sentir ne xëy na résultat yi mu doon xaar si ñoom indi luñ ko ko mais ça ne veut pas dire que dañu amul xam-xam seen xam-xam ak seen taxawaay si wàllu xam-xam moo tax mu tegoon leen fa waaw. waaw léegi euh, yow yaay euh, coordinatrice mouvement national des des enseignants républicains euh, section Patte d'Oie léegi grève jàngalekat yi lu si sa xalaat ndax yow jàngalekat nga. waa mhm. ah. waaw grève jàngalekat yi moom Abdou Khader dafa nekk loo xam ne xëy na ah tournure bu muy jël nii neexuñu parce que tamit jàngalekat yi am nañu droit nag dem grève comme tous les travailleurs parce que boo nekkee ci mbir nga dem ba gis fa loo xam ne xëy na gisoo fa sa bopp bu la neexee nga dem grève donc c'est un droit reconnu mais tamit boo demee grève ngay dem di am di teg sa plateforme ñuy am ay saafara yuñ ciy dem yuñ ciy def je pense que da nga war a dem ba benn moment nga taxaw nag taxaw bi mooy da nga war a jox cër xale yi nga xam ne ñooy sunuy doom ñun ñëpp ay parents d'élèves lañu. te le fait que ñuy gis xale yi ci mbedd mi ba ñuy dem bay yuuxu taxaw ci mbedd mi je pense que loolu képp koo xam ne am nga tuuti sensibilité war na laa métti ba tax na ñun sunu mbokku jàngalekat yi nga xam ne dañuy grève dañ leen di ñaan ñu revenir à la raison comme la ñu tegoon comme revendication gouvernement bi mu ngi ciy def ay jéego même su fekk na lépp dajul mais def na ci ay jéego yu am solo donc je pense que vraiment jàngalekat yi war nañu dellu ginnaaw tuuti xool aveniru xale yi nga xam ne ñooy aveniru dëkk bi. parce que dëkk bu amul jàng nag ah bu boobaa dëkk boobu dafay naax saay. waaw mais xam nga yaa ngi wax avenir mais ja mais fii ku am avenir fii ci réew mi. jàngalekat yi ñoo la jàngal te li gën a métti ci réew mi yow jàngalekat nga xam nga ne moo gën a métti mm-hmm. ndax xale bu xamagul dara mm-hmm. njàng mu diggu doomu mi xale bu xamagul dara nga bëgg a def ci xelam un plus un égal deux xam nga ne li gën a métti ci réew mi mooy jàngale kon jàngalekat yi war na leen a jox seen cër aussi waaw jàngalekat yi dañ leen war a jox seen cër loolu dama koy dëggal parce que nag ci corporation boobu laa bokk te jàngalekat yi lu ñuy liggéey amul kenn ku koy liggéey sacrifice yi ñuy def amul kenn ku koy def maa ngi jógee démb Ziguinchor ak Matam tournée laa nekkoon pendant dix jours mais boo demee ci àll bi ba gis jàngalekat yi lu ñuy daj foofu da ngay xam ne jàngalekat yi ñu ñu war a jàppale ñu lañu parce que nag condition yu métti la ñuy dund. Ah, waaw waaw looloo tax nag président Macky Sall xam loolu. moo tax bi mu fi toogee ba léegi wax dëgg neex yàlla dafa poser acte yu am solo. dans le secteur de l'éducation léegi man Ramatoulaye yow jàngalekat nga mais président Macky Sall man damaa gis ne moom respecté jàngalekat yi ah, waaw d'accord léegi xam nga man loolu laa jàpp mm-hmm. xaar ma xam ne ndax man loolu laa jàpp mm-hmm. léegi ndax man respecté wul jàngalekat yi mm-hmm. soo demoon tey liggéeykat yi nekk ci ministère de l'agriculture seen indemnité yi yokk nañu ko boo demoon tey ci par exemple tey inspecteur du travail. Mhm. seen indemnité yokk nañ ko. Mhm. boo demoon tey ci magistrat yeeg ñëpp seen indemnité yeeg taxaw bi ñu leen état bi taxaw taxawu ko jàngalekat yi. Mhm. te fii magistrat bu fi xam dara. avocat bu fi plaider. directeur bu fi nekk jàngalekat yi la jàngal fii réew mi amul kuñ war a gën a médecin yi ngay gis jàngalekat yi leen jàngal mais ñooñu lan moo tax kon ñu suufee leen que gën a yokk ñeneen ñi si seen seen situation waaw xam nga Abdou Khadre président xam loolu nga wax noonu pour corriger ko saafara ko gis ne dafa am inéquité am inégalité. loolu moo tax président di def xam na ko xam na avant waaw yàgg na ko xam moo tax bi mu fi toogee. Ah, président président bi mu fi toogeeg léegi. waaw li mu def ci secteur éducation. soo waxuma yeneen secteur yi de parce que secteur bu nekk am na lu mu fa def mais secteur éducation bi nga xam ne ci laa nekk président li mu ci def. ñun jàngalekat yi wax dëgg neex yàlla war nañoo saluer effort yi nga xam ne président de la république ah yow gisoo ko parce que doo jàngalekat. waaw mais maa ngi waxtaan jàngalekat. ankay ankay man chiffre yaa ngi nii ma yore président li mu fi def kenn xamul nu mu toll nee nañ ci secteur éducation président def na fi lu ëpp deux cent treize milliards ci cinq yi passé rek. cinq yi passé rek amul lu fi président deful te ko Dakar toutes les régions am na lu ñu leen jox. pour ñu suqali seen jàng ak seen jàngale donc président de la république enseignants yi grève sax xam nañ ne président bi ñu fi toogee léegi li mu fi liggéey ci secteur éducation kenn xamul nu mu toll. xam nga tey président tabax na école ak université mais yaa ma gën a xam ne yow tournée bii nga def. Mhm. xam nga ne jàngalekat dañoo sonn te lii. Mhm. du loo xam ne Macky dafa nekk président doog koo xam. Mhm. léegi nag yow sànq nee nga revendication gis nga revendication. ak accord yu ñuy signé am na différence. jàngalekat yi fi nii si revendication li ñuy revendiqué. ñoo ngi siy teggi dara di naxanteeg lan moo tax nanguut a wàccoog moom loolooy problème bi. ci revendication yi. waaw mais accords yi ñu signé ba pare. waaw mais accords yooyu ngi koy saafara yan accord la. bay bëri na. xanaa du euh, accords yi bokk na ci. pour euh, carrière enseignant yi. pour ñu débloquer seen avance mais yooyu yëpp ñu ngi ci. ñu ngi ci fonction publique ñaata acte la ñu pour avancement jàngalekat yi ak seen reclassement kenn xamul nu mu toll. kenn xamul nu mu toll donc bu ñu wax ne. président dafa minimiser jàngalekat yi. mais yoo xam ne président minimiser wul jàngalekat yi dañoo sonn. mais xam naa ko ci biir laa bokk nee la maa ngi jóge euh, tournée au plus profond xam nga dañ koy waxee Sénégal des profondeurs boo demee da ngay fekk jàngalekat. jàngalekat ñu sonn. nekkuñu si courant nekk amuñu courant amuñu ndox. maa ci teg sama bët. amuñu internet. amuñu internet maa ci teg sama bët di dem d'un village. à un autre wala jóge seen village dem ci ville bi nga xam ne moo leen gën a ah, gën a jege ak insécurité bi pour di reproduire seen seen seen seen i copé yooyu yooyu yëpp man gis naa ko mais président mu ngi saafara loolu parce que boo demee euh, boo jëlee lu mel ni PUMA PUMA mooy lan programme d'urgence de modernisation des axes parce que président xam ne accès yi dafa jafe pour nit ñi dem fa dafa enclavé loolu moo tax mu teg PUMA Puma di dugg dans les coins les plus reculés di fa def ay yoon di électrifier zone yooyu di leen appuyer man dem naa ci école yoo xam ne Puma ñoo ko tabax. parce que dama demoon ci tourner boo xam ne les nouvelles créations de lycée et de collège moo yi nga xam ne depuis 2018 tabax nañ ko ci yu bees dans le système euh, dans dans le moyen secondaire yooyu laa demoon di di xool création yi. fi mu toll wax ma si abri provisoire yi nga gisaale. abri provisoire yi xam nga nit ñi dañuy wax abri provisoire. te comprendre ñu lan mooy abri provisoire. mooy ay mbaar. la mais lan moo ko indi. Ah. lan moo ko indi. ñàkk a tabax salle de classe waaw. dëgg la mais xam nga population yi ñoom ñooy toog ba xam ne seen dëkk màgg na. population bi màgg na xale yi nga xam ne ils sont en âge d'être scolarisés toll nañu war a dugg école ñoom ñooy toog xam ne fii kat sunu njaboot gaa ngi nii bu ko defee ñoom ci seen bopp. ñoom ñooy defar abri provisoire yi parce que dañ leen naan su fekkee ne am ngeen effectif mooy maanaam xam ngeen ne xale yi tollu nañ ci nombre boo xam ne mat nañu pour euh, nekk ci benn classe su yi léegi ngeen defar mbaar wala ngeen defar dara bu ko defee système bi ñoo leen di yónnee jàngalekat. loolu du état de. defar ndànk rek bu ñu leen yónnee jàngalekat ñu commencé en abri provisoire mais état bi am na politique boo xam ne dafay dem nag après abri yooyu mu résorber leen man fi ma dem yëpp. gis naa fa fu bëri foo xam ne ay abri la mais état bi mu ngi créer ay collège di créer ay lycée et euh, abri yi ndànk-ndànk la ñu koy dindi mais pour nit ñi xam que abri yi population yi ñoom ñooy gis ne seen doom war nañu jàngale bu ko defee ñoom ñooy organiser wu ci seen biir parce que communauté xam nga dañ naan communauté mooy nit ñi nga xam ne ñoo constituer dëkk bi ñoom dañoo c'est des acteurs du système. waaw d'accord léegi nag. Euh, ministère bi moom deful liggéeyam. ak ah, euh, gouvernement ndax bu defoon seen liggéey. Ah. bu ñu demee ba Ramatoulaye xam ne kat fii mu dëkk nii am nañu fi cinquante yoo xamante ni bëgg nañoo jàng. Mhm. su bindee cinquante bi seen tour seen numéro waajur yóbbu nee ko ministère ministère moo war a indi ay jàngalekat. tabaxal leen eh, univers tabaxal leen tabaxal leen loolu la ministère di def xam nga maa ngi lay wax communauté ndax bi population bi ci la ñu bokk élus locaux yi ci la bokk muy waa bi ak conseil départemental ñoom ñooy toog def seen réunion ak if bi. Ah. daal di wan ne fii kat ñun gis nañ ne war naa mën a am école. Ah. bu ko defee demande bi bu ñëwee eh, ministère ñu ne leen ay ca commencé leen. ñoom bu ñu commencé ñu fekk si leen ci ñun ñoo leen di jox jàngalekat. kat ah, d' accord d' accord euh, Ramatoulaye Ndiaye Diallo léegi ñu ñëw ci seen mouvement national des enseignants républicains mouvement bi moom. dafa mel ni tekkeetul lu bëri ndax bu njëkk amoon na représentativité amoon nañ taxawaay jamono Youssou Touré mais jamono ji nga xam ne Maimouna Sissoko moo ko jiite yow tamit nga bokk ci est-ce que seen taxawaay feeñ na. waaw jërëjëf Abdou Khadir ci question bu am solo bii nag bii nag laa doon xaar sànq ba tey parce que gis nga mouvement bi. mouvement national des enseignants républicains parce que nit ñi damay profiter ci sa antenne pour wax ne du réseau des enseignants temps Youssou Touré ma di ko nuyu sama xarit boobu di ko ñaanal jàmm ak salaam temps yooyu dañ doon wax déedéet foqate wuñ ko parce que président moo ko ko dénkoon ñu tuddee que réseau sax mais dans les textes du parti mouvement national des enseignants républicains moo ci nekk parce que dafa nekk benn entité boo xam ne une entité statutaire dafa bokk ci statut parti bi comme ni ci convergence des cadres républicains bokkee comme ni si COJER bokkee comme ni si sage yu bokkee femmes yi bokk donc enseignants yi ñoom tam dañu am seen entité bu tudd mouvement national des enseignants républicains mhm. lan mooy seen liggéey mais mouvement bi dañuy suñu liggéey mooy les réalisations du président Macky Sall dans le secteur de l'éducation mhm. ñu di ko vulgariser di wane président liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci euh, secteur éducation mais actif nañu parce que nag danga maa dagg mais mouvement bi bi ñu fi jëlee monsieur Youssou Touré mu liggéey fii li mu fi liggéey dem président xool sunu sœur bu tudd Maïmouna Sissoko mu teg ko fi nañu àndalee nag moom ngeen liggéey defe naa boobu ak léegi bi mu ko fi tegee ak léegi yàggul mais kuy suivre mouvement bi di nga xam ne mouvement bi may mun a mu ngi jël initiative yu am solo ñu ànd ak moom gunge ko ci mais dafa dafa defaraat affaire bi communication am na ci. ankay ah, ñu ngi communiquer. ñu ñu ngi amul unanimité am na ah lu tax amul unanimité te ki nga xam ne mooy fale moom moo ko fi teg muy président Macky Sall. mais ñoom kii bokk ñoom Amath Son Amath Son Camara gis naa keroog mu koy ŋàññi fii de. Ah, kooku bu ko ŋàññee moom la moom la engagé sama frère boobu Amath maa ngi koy nuyu gëj naa ko gis mais bu ko ŋàññee moom la engagé parce que li ma lay wax ñun ñun discipline de parti la ñuy respecté. président Macky Sall moo xool ci ñun ñëpp ne Maïmouna Sissokho moo ma doy àndalee nag moom ngeen liggéey donc ku ko deful je pense que def nga li nga xam ne euh, warloo na ak directive wu président de la yow yow yow en tant que femme responsable. Mm-hmm. est-ce que gis nga ne Maïmouna mm-hmm. ma ngi def liggéey boo xamante ni yow ay innovation la yu bees ci mouvement bi. waaw yu bees tàq nag Abdou Khadre parce que Maïmouna bañ ko fi tegee daf ñoo ñun ñëpp. ñu toog waxuma la waa dakaar rek de même département yi yi ci biir dëkk bi daf leen woo ñun ñëpp ñu ñëw toog mu ne président dénk na ma mbir mi mais mbir mi man kenn mënuma ko doxal man ak yéen ñoo koy doxal daal di teg nag poser ay actes yu am solo donc may mun a bi mu fi toogee ba léegi ñëpp gis nañ ne les choses sont en train de bouger mbir yaa ngi yëngatu nag. mais est-ce que am ngeen xaalis bu ngeen liggéeyee. xaalis de man foofu moom wàll boobu duma ci duma ci sori parce que xaw ma ndax subvention bi commencé na wala commencé wul mënuma ci sori mais je sais que daal bi fi nekkee ba léegi mbir yi ñu ngi dox loolu moom mën naa ko wax wax dëgg neex yàlla en tant que femme. Mhm. waaw mais mais mais am na ñoo xam ne xamante ni ànduñu si. ah non bu dee buñ ci àngul àndul ñoom loolu ñoom la engagé Abdou Khadre waaw parce que président na bu ne toppal leen ma ci ginnaaw kii ngeen liggéey ak moom ñoom ñu dem def leneen. ah ñoom la engagé wax dëgg yàlla. mais Maimouna président moo ko fi teg moo ko nommé nomination bu officielle ñun ñu ànd ak moom di liggéey. d'accord jërëjëf euh, Ramatoulaye Ndiaye Diallo maa ngi lay sant di la gërëm. waa Abdou Khader ah waxtaan bi doyul parce que tamit euh, xëy na temps bi moo jeex mais mënoon nañu gën a xuus ci ci grève bi gën a xuus ci sunu mouvement national des enseignants républicains. mais ñu bëgg leen xanaa mouvement bi. parce que may Maïmouna Sissoko xam nga mooy directrice générale case des tout petits. Mm-hmm. bañ ko ko ba ko président Macky Sall dénkee ci biir liggéey case des tout petits boobu mu doon liggéey fépp fu mu dem à travers le Sénégal rencontré na jàngalekat yi. donc defe naa président liggéey euh, gis liggéey boobu nga xam ne Maïmouna def na ko en tant que directrice mu sillonné toutes les régions du Sénégal mu gis di ko suivre xam li mu liggéey je pense que loolu moo tax mu dénk ko ko réseau bi mu dénk ko ko mouvement bi sax laay laay wax. moo tax mu dénk ko ko muy liggéey fi mu toll nii lépp lu muy def coordonnateur yu bëri du wax ñëpp de parce que tamit day doog a commencé mais coordonnateur yu bëri ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi. mais est que def na ko ay structuré na ko. non non pour le moment euh, structuré guñ ko pour le moment dañuy liggéey noonu rek. waaw mu jël ay initiative ñu toog mu partagé ko ak ñun ñun ñu xool xam ne c'est des initiatives pertinentes. ñu ànd ak moom di structuré ne Padois kii fa nekk. Euh, loolu moom fi la ko fekk. loolu moom fi la ko fekk parce que réseau bi bu dee loolu ngay structuration fépp fu nekk am na ay coordonnateurs départementaux am na ay coordonnateurs communaux. waaw loolu am na bi mu ñëwee aussi moom dindiwu ko. parce que man ba may nekk coordonnatrice Padois nekkeewu ma ko ci ci moom. nekk naa ko bu yàgg depuis Youssou Touré nekk fi donc moom bi mu ñëwee loolu yëpp daf ko fi bàyyi mais nag gën a dooleel mbir mi daf ko renforcer consolider ko. d'accord jërëjëf ñu lay sant la gërëm. waa kay Abdou Khadre maa ngi lay remercier bu baax a baax ci dalal bi nga ma dalal fii tey ci réew mi FM. waaw di la jërëjëf di jërëjëfal également Fatou Thiam Ngom waaw mu nga xam ne vraiment waaw moo ñu boole waaw di ko remercier bu baax a baax a baax ah di nuyu sama mbokk jàngalekat yëpp hmm. di leen euh, wax ne grève bi ah nañu nañu taxaw nag dellu ci classe yi parce que nañu xool euh, njëriñu xale yi xool njëriñu sénégalais yi nañu jiital seen fibre patriotique parce que tamit euh, ñun ñëpp dañu war a xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn ku nekk rek fa nga toll fa nga nekk war nga fa def loo xam ne soo ëllëgee soo fa jógee ñu ne diwkat ba mu fi nekkee def na fi lii donc may ñaan sama mbokk jàngalekat yi grève dëgg la sunu droit la ñun ñëpp tey jii ñun ñi nga xam ne dañu nekk ay enseignants républicains tey jii ñoom la ñuy xeex bés buñ ci amee gain de cause ñun kenn du ñu ci ëppale parce que ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo bokk te ñoom xeexaluñu seen bopp ñëpp la ñuy xeexal jàngalekat yëpp la ñuy xeexal ah. mais dañ leen di ñaan aussi vraiment ñu taxaw parce que grève tamit bu yàggee baaxul ci réew baaxul ci système bi. d'accord waaw loolu la. Euh, jërëjëf euh, Ramatoulaye Ndiaye Diallo mbokk yi moo nekk euh, responsable politique APR fi nga xam ne mooy Patte mu nekk coordonnatrice mouvement national des enseignants républicains ci section Patte d'Oie moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kàddu gi moom Mamadou Diaw Diallo ci wàllu machine bi mbokki yi ngeen jëf jàmm ak jàmm.